ñi muy gën a faat mooy ñi nga xamante ni mooy les personne âgées euh, personne agé yi nag tamit da ngay gis ni jàngoro yu baree bari daf leen daal di sonal ñoom nag jàpp nañ ni état Sénégal daf leen fàtte ci plan de riposte bi nga xamante ni teg na ko ngir xeex euh, Covid 19 lépp daañu ko waxtaanee ak wàllum euh, problème mu retraité yi file ci Sénégal pension de retraite retraite à 65 ans aussi bi nga xamante ni récemment lañu ko daal di signé ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi waxtaanee tey ji ak Mame Birame Faye nekk président bu conseil national euh, des aînés du Sénégal ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. Euh, maa ngi leen di fay soxna Ndeye Kumba. Mm-hmm. suma xarit. dëgg la di nuyu seen waa bi yëpp. Mm-hmm. moo ñu fi liggéeyee ñëpp di nuyu seen kilifa yi. Mm-hmm. te di leen ñaanalit ah yéen ñu mat a ñaanal ngeen ndaxte yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib. nga baal ma ma nuyu suma ñoon yi nga xam ne ñu ngi nekk ci région yi mhm. nekk ci département yi nekk ci communes yi mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi ci liggéey bu mucc ayib ci balaa mbas mi di laata ñëw sax mhm. eh, gëm nañu ne ñoom mag ñi am na lu nga xamee ne war nañ ko di doxal ci lu rafet ci lu baax ci réew mi di jaal kilifa yi nga xam ne dëddu nañu làqu nañu ay kilifa yu baax ñu yàlla may ñu wone seen màndarga te boo seetloo mois de juin bi mhm. dafa am benn kilifa bu jëkk génn àdduna jóge ci réewu Mauritanie mhm. ñu koy tuddee Karamakho Gadaado Keita mhm. borom xam-xam wàllu yu kaamil keroog joojule mooy ngelaw loolu ñu doon wax ak poussière boobu ñu doon wax mu jóge Mauritanie ñëw ñu ngi koy ñaanal suñu borom bi teeru ko ci addina yu gën a rafet. amiin amiin di ñaanal it ñi nekk fii. Mhm. gis ngeen ku si génn àdduna rek am na benn mandarga buy feeñ. Mhm. looloo wane ne Sénégal macha allah. Mhm. kon bon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal eh, di leen di ñaan suñu borom bi mu teeru leen ci àddina bu gën a eh, yaatu. voilà ñuy profitoo ci occasion bi kon euh, gis nga sax euh, comme ni nga ko waxee ci tivavon ñu ngi euh, perdre porte parole bi en tout cas ñu ngi koy jaale waa waa di ko jaale umma islamique bi yëpp di ko jaale waa Sénégal yëpp mu nekkoon koo xamante ni vraiment vrai régulateur social la woon lan nga ñu mën a wax ci Pape Malick Sy mi nga xamante ni récemment la la génn àdduna baax yaru woyof mhm. reegu neex mhm. kaddu gu sedd kaddu gu dëggu comme magam mhm. comme euh, kilifa diine yëpp ku si jël kàddu rekk nga ne moo mhm. kii day moom wax dëgg yàlla macha allah. Mhm. ñoom ñëpp yàlla da leen baaxe loolu ci seeni i wayjur si seen maam yeeg seen bàyyi euh, duñ si sori lool ndax lan sa wax am na ñu bari wax nañ ci lu bari euh, am na lu bari lu ñu bàyyi waaye loolu lu am solo la. Mm. Euh, doomu gaynde gaynde lay doon. Mm. dañ koy wax. Mm. te ñoom am na lu leen yàlla may wax naa ko léegi. Mm-hmm. ba ñuy génn àdduna am na ay signes yu ñu wone ay màndarga yu nga xamee ne nit ñi teg nañ ci seen bët jaxran ay wàllu yu kaamil. Mm-hmm. macha allah macha allah mi ngi noonu Serigne Pape Malick euh, si ñu ngi koy jaale euh, waa Sénégal yëpp di ko jaale à toute la umma euh, islamique tey jii Mame biram Diouf nga jiite conseil national des aînés du Sénégal man sax dama lay laaj conseil bile lan mooy njëriñam exactement. voilà. Ah. ah nit ñi de dañ ma naan maam Birame Diouf. maam Birame Faye <laughs> man daal damay juum rek. am na am na am beneen ñoo dañoo bokk maam. ba nga xam ne boo naan Diouf ni fay mhm. ba tey benn la. benn la maam Birame euh, Faye. conseil mhm. national bii ngay gis nii. Mhm. maanaam ñi ko sakku. mooy kuréelu mag ñëpp. arrêté rek ñu arrêté wul. ñoo toog sakku ko ay at. ministère de la santé et de l'action sociale. liggéey seeg. kuréel yi. Mhm. ci benn arrêté ministériel. Mhm. toog nañ ci di si liggéey lu mat juróomi at laa mën a taamu. Mhm. mais ëpp na sax juróomi at. ndax dañu gisoon ne ku nekk dafa doon beru ku nekk di wax di yëkkati sa baat. te baat bi benn la. seen bëgg-bëgg benn la mooy affaire arrêté yi affaire mag ñi seen wér-gu-yaram ak seen dundin seen nekkin ci réew mi ak seen taxawaay ci réew mi. kon tey jii benn mandarga rek dinaa la ko joxe. Mhm. ci li nga xam ne mooy mission wu euh, conseil bi. Mhm. moo di ne lépp lu ñuy war a euh, euh, tënk fii. Mhm. lépp lu ñu war a samp. conseil bi war na ci dugal loxoom wax ci jox joxe ci xalaatam ak xelam ndax dañ ne mag ñi nga xam ne. ñoo samp jigéen ñi. Mm-hmm. ba Sénégal mën a toll fii. Mm-hmm. Euh, depuis ñoom Senghor balaa ñoom laataa ñoom Senghor sax mën na dem sax ba Blaise Diagne ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. ñoo xam ne dañ si liggéey ak it mag magu këru diini yi nga xam ne. lu nekk def nañ ko fi ci lu baax. muy doon lu ñu war a mën a roy. mu doon lu ay mandarga lu nga xamee ne dañ ci war a sukkandiku di si taataan di doxal tey jii li war a jaar ci yoon. kon conseil bi euh, taxawaayam noonu la. ak leneen mais mais mais yéen maam du ngeen yëngu-yëngal. maa bi tekk ngeen def. Euh, dëgg la maam Birame euh, Faye maam Birame Faye gëj nañ la dégg nga yëngu-yëngal. waaw xam nga yëngu-yëngal alors mag yi ñu ngi si jafe-jafe yu tar. dëgg la soxna soxna. wala dañ la jox carte APR. <laughs> dinaa la wax tey nag benn mbir. Hmm. xam nga da ne ndax dañ la jox carte APR. waaw. man bokk naa ci ñi nga xam ne. 2012. Mm-hmm. Mm-hmm. yore naa benn am na benn comité scientifique bu ma jiite woon. Mm-hmm. le président Macky Sall ko ba candidat la mu toog. récité na programme am pendant presque une heure. waxtu. jëluma kay jëluma dara may dégg. muy wax may dégg. ma jubbanti ci programme bi. daal ko yëgal ne. moom ci wàllu boppam yàlla may na ko sens su. ak taxawaayam ak jëmmam ak tekkaaralam mm-hmm. ëllëg si biir mu war a doon président keroog jooju mm-hmm. kilifa yii ñu may dégg ministre Seydou Gueye mu may dégg mu ngi woon mm-hmm. toog nii si sama ginnaaw ñoom euh, Tafsir Ndikke benn euh, euh, taalifkat ak bindkatu téere waaw mi ngi lay ziar sax parce maa ngi affaire bi mu ne xam na la bu baax bu baax a baax tafsir gis nga tafsir mi ngi mu nga fa woon ñeneen ñu wax ci wax na ci maanaam programme Sénégal wax nañ ci programme mag ñi. Mhm. ba keroog jooju ñëpp kontaan. Mhm. ñoom ñëpp nga foon. waaye tey jii dinaa la xamal ne. mais tey jii jëloo carte. déglu rek maa ngi dikk waaw mon oncle parce que da nga yëngu-yëngal. maa ngi dëkk waaw man dama mas di yëngal. waaw waaye ci mhm. yëngal boobu tey jii. jotaay bii mu nga xam ne dama ko jiite. war naa di yëkkati kàddu. du ma yëngal sax may dama yëkkatu kàddu wax ay dëgg yu ne peng mhm. lu kenn mënul dindi mhm. te ku nu toppul ci suñu dëgg yooyu ñu lay wax mhm. euh, yàlla mu ngi ñuy dégg te yàlla mu ngi ñuy gis ñun nag lu rafet rek la mu am muy ci biir APR ak waneen yeneen parti yi d'ailleurs sax dañ naan euh, ñeneen ñi nga xam ne ñàkk juboo ci kàddu ak ñii ñu dénk réew mi war nañoo mën a ñun ñi di dox diggante yi ba mu gën a rafet gën a jekk mm-hmm. loolu mooy mooy suñu taxawaay mm-hmm. waaye mënuñu toog di def comme xale yi mm-hmm. di dox ci mbedd mi. Hmm. bés bu ñu jógoon nag. waaw ba yor suñu kuris yi. Hmm. dugg ci mbedd mi keroog jooju Sénégal boo moytul. <laughs> ngelaw li dina dina metti foog nga def ko si parce que si kanam dina ñëw si seeni i jafe-jafe. Hmm. Ah, am na am na réew mi fu mu toll ak euh, gouvernement bi ni mu leen fàttee faaw nag ngeen génn yëngu-yëngal xam naa ni sax mënoo leen def grève de la fin faim ainsi de suite mais ngeen def benn marche pacifique dox defar seeni i ne xamal njiitu réew mi seen i jafe-jafe. Euh, waaw. yaakaar man Birame Faye lu tax loolu organisé wu ma ne yaakaar na ma ne dem buntu palais wala dem buntu IPRES wala dem buntu euh, caisse de sécurité sociale. loolu c'est dëgg-dëgg la defoon nañ ko. Ah. même sax tey jii boo nee Mame Birame Faye am na benn euh, taxawaay bu. Mhm. retraité yi taxawoon buntu IPRES. Mhm. Euh, la veille bala laataa loolu am. booba nekk guma président wu lii. Mhm. kii fay IPRES yi oo nan ma. parce que jaaxle woon nañu. mooy bi ñu daggee. waaw xaalis nit ñi. Mhm. dañ nar leen fay tuuti. tuuti kër jooju. Mhm. bés boobule ak kilifa yi fa nekk toog nañ ci saal ñu réglé loolu ak préfet Dakar ak ñeneen ñu nga xamee ne ñu ngi xool. Mhm. waaye kër jooju. ña doon gën a fës ci. ñu ràññee leen ñuy am. li ñuy am foofu ci IPRES. keroog loolu yëngatuñu ñun nag utuñu fa utuñu fa ay macaat. uti ñu fa xaalis uti ñu fa leneen lu dul. li ngeen ut ñu li ñu moom daal di seet dëgg gi daal di fu ñu koy teg. Mhm. ba tey man na noo wax sax ne euh, lu si bari lu nga xam ne ñu ngi koy réglé IPRES man naa wax ni yàlla daf ko jaarale suñu loxo. Euh, xam nga nga lay wax jotaay boobu ñu amoon président. Mhm. ba mu faloo ba ne yow bu soobee yàlla am nga ci yoonu mën a falu. Mhm. te bu soobee yàlla yàlla dina la jàppale ba nga fal loolu amoon na. lan ko doon wax ca booba jamono. Mhm. tafsir ndikki day dina la ko wéral. Mhm. ba am na luñ ko ci doon wax ba léegi mu ngi koy dund. lu leer laa la wax. mais mais mënoo ma wax ba xamee am nga carte APR waaw wala déet. waaw ñun. waaw si sunu at nii soxlawuñu yore carte. amul carte APR ñun ci sunu ah, wàllu bopp moom tontu ma rek. <laughs> wàllu bopp <laughs> carte. Ah. non dama ne. Ah. ñun. Mm. sunu wàllu bopp mag la ñu yore. Mm. man de ci lii ma yore nii carte mag laa yore. Mhm. waaw carte mag yooyu da ngay tëddee njaaxaane seex. waaw xool li mag ñi bëgg rek. waaw li mag ñi bëgg rek te it lii nar a yàq nga taxaw ci wax ci. suñ mhm. la dégglee. Mhm. ku la déggulul tamit yow nga xam sa boppa waaw. léegi ñu ñëw ci pension de de de retraité euh, actuellement yan jafe-jafe ba léegi pension yi néew na parfois ñu ne yokk nañ si pour pourcentage tuuti tuuti est-ce que mën nga ci ñëw euh, leeral ñu tuuti ak mensualisation bi euh, est-ce que bu fekkee nit ki da daan jot euh, par exemple quarante mille francs par deux mois biñ ko mensualiser mille francs lay jot loolu mooy am ba léegi wala. lan nga ñu ci mën a leeral soxna Moreau am na ay jéego lu ñu def mën nañ ko. ci euh, pension de retraite ci pension de retraite wax dëgg yàlla. xeex bi ñu doon ba léegi néew na de. néew na weesu na néew. Mhm. ndaxte mbir mi buñ la joxee benn. Mhm. doo ko bañ danga koy jël ba pare continuer di laaj leneen li nga xam ne yaa ko yeyoo yaa ko moom. Mhm. tey jii mën nañ wax ni ñeenti yoon augmentation dix pour cent mais nag augmentation boobu dama na leer ci kaw nit ñi. xam nga bu nee retraite rek dañ naan IPRES mais amul IPRES rek amul IPRES rek am na FNR. këru retraite mhm. ñu nga fa. fonctionnaire yi mais nga leeralal ñu ko. mooy Fonds national de retraite. waaw IPRES de prévoyance la bële mooy ñi nga xam ne dañu liggéey ci administration bi. Mhm. nekk fonctionnaire war a toucher seen retraite FNR. waaw. bii nga xam ne. Mhm. IPRES la. ñu muy gën a jël mooy ñu ñuy tudde non fonctionnaire hmm. maanaam ay fonctionnaire la mais amuñu mandargal fonctionnaire parce que euh, ni mu tëroo la hmm. ak at yi nga xam ne euh, ci la ñu nekk ñu ngi doon cotiser fële ci IPRES hmm. tey jii euh, privé bi IPRES la waaye privé bi mooy presse. FNR mooy fonction publique fonction publique bi léegi est-ce que nit ki mën na bokk fii bokk fee wala ku bokk FNR doo bokk IPRES. waaw am na si ñenn ñu nga xamee ne. Mhm. nekkoon nañ xarale. Mhm. fii am fële. waaw ba tax na am na ñu ñooñu le dinañ fexe jël seen lanu am fële indi ko fii. Mhm. Euh, ko mu doon benn rek. mu dekk benn. waaw beneen bi si des mooy dañuy wax retraité yi boo xaymaa téeméer. ci mag ñi. Mhm. Sénégal. Mhm. mais ñi si am retraite. Mhm. Euh, ñaar fukk ak juróom. ci téeméeri. kon ñu la sa yëpp ñu liggéey nañu pour Sénégal ci yeneen fànn te bokk nañ ci économie bi koom-koomu réew mi mais amuñu seen retraite. ñooñu nag dañ leen di xeexal. pour ñu am retraite lu ñuy wax minimum vieillesse. minimum vieillesse wuute nag pension minimale. Mhm. pension minimale moom nga doon xaw a junj yow. Mhm. moo di ne yi gën a tuuti. Mhm. retraite ca fonction euh, ci IPRES. ñu yëkk ko ba yokk ko ba mu tollook lu ñu doon lu ñuy tuddee SMIC. Euh, maanaam euh, juróom ñaari junni. mu tolloog noonu le waaye juróom ñaari junni yi sax weesu na ko depuis at. waroon na dem ba fukki junni. Mm-hmm. yu nga xamee ne war na fa war a mën a ne. ci li ñuy tuddee euh, chimique euh, euh, le chimique. Mm-hmm. ah tey jii jéego yooyu nga xam ne dañ ko def. Mm-hmm. augmenter leen benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon. daal di yokkaat cinq pour cent yooyu nga xam ne dañ koy jagleel pension yu gën a néew. mais yooyu yëpp ay jéego la mën nañ ko rafetlu. mais jéegalo yu nga xamee ne neex naqadi ci kattanu suñu borom bi président daf ne defal leen lii lii parce que xam ne dossier bi bu baax mm-hmm. ba muy laatu toog xamoon na lu bari ci affaire retraite ak affaire u mag mm-hmm. kon waa FNR mm-hmm. dañu tënku ci euh, texte yi nga xam ne moom mooy euh, yóbbu fonctionnaires yi nga xam ne ñu ngi liggéey te yooyu dañ ne woon ko changé depuis bi ñu teniree conférence sociale bi defe naa ne 2017 la woon conférence sociale boobu nga doon dégg sur la retraite mm-hmm. ci maanaam mbirum retraite yi dañu waxoon ne ba président insisté daan ne il faut que ñu seetaat texte yi mm-hmm. maanaam euh, charte yi nga xam ni moom la ñu tëral di si wékku te mu doon lu yàgg yàgg yàgg temps colonial ba léegi ñu nekk ci loolu la mm-hmm. xam nga ne loolu jaaduwul. faaw ñu yeesal ko faaw ñu yeesal ko pare problème mu IPRES loolu la. Mhm. problème mu IPRES manu doon IPRES manu doon ay syndicaliste ay patron yu fa nekk ak ak représentant administration yi rek ñuy buum di buumi alors que retraités yi nga xam ne seen xaalis lañ fa dajale woon di leen fay tey jii ak yeneen ak yeneen yu fa am yuy indi xaalis ñu teg leen fale buñ ko yeesalee ba nga xam ne ci biir conseil d'administration bi dina am ay retraités yuy. ñu représenté retraité man leen toogal waxal leen. Mm-hmm. ña fa nekk tey jii du retraité yi ñoo leen désigné loolu na leer. Mm-hmm. dafa am ay kilifa yu nekk foofu daal di ne waaw euh, ñii de mën nañoo ñëw ci suñu wet ñëw toog. Mm-hmm. loolu baaxul. gannaaw bu mag ñi am retraité yi ñoo leen waroon désigné. ñoo leen waroon désigné. c'est comme syndicaliste yi ni ñu ko defee. Euh, nan waxante dëgg. Euh, manoo tànn si ay nit ne ñii dama leen di teg fii. ñuy xoolal mag ni waaye seen baat amuñu fa baat mm-hmm. ñàkk am baat boobu boobule nag moom moo doon gros problème bi nga xam ne moom lañ waa IPRES yi di dund retraité IPRES yi dund mm-hmm. di ko ñaxtu di ko jooy loolu mm-hmm. jooytu googule jaru ko xam nga dañu war a def lu war a def mooy toog saytuwaat texte yi xool ko ndax depuis 2009 saytu woon nañ ko ba tënk ko yónnee leen ko ñu teg ci seen tànk yooyu ñun liggéey nañ ci changé ko ba nga xam ne euh, retraité yi. Hmm. te ñuy am foofu place. comme ñeneen ñi ñu fa amee. place ñuy ñuy xool. la baax non seulement di xool di wax di wax. di wax di bañ. Hmm. Euh, di leen ki xam naa ne loolu euh, du leen neex. Hmm. ndax wéet boo wéetee ci ngay mën a def. li ngay def li def lu la neex. ko waaw di mu ngoog kon bon ñun am nañ si yaakaar. ne kilifa yooyu ŋànk dañ leen ko dénk suñu ay doom lañu suñuy jarbaat duñu suñuy buur tey ku dul yàlla yonent ba ñun gëm nañ ne mindeef dong nga mindeef dong nga buñ la joxee ndombal tànk bii ëllëg si biir da nga ko fii bàyyi daal di dem mm-hmm. sa morom jël tey yi ñoom waroon nañ sax am kers si ñi nga xam ne ñooy seen baay seen nijaay ñu beddi leen sànni leen fële di defanteeg ñoom ay yenn jëf yu ñaaw yi. Mhm. waaw. Mhm. problème yi bari na foog ñu ñëw ci ci plan Sésame euh, fu mu toll parce que gis nañ fii mag ñi pour ñu feebar faju c'est c'est vraiment problème bu rëy rëy la euh, Mame Birame lan nga ñu mën a wax ci lool est-ce que plan Sésame bi tamit am na njëriñ est-ce que nekkul benn plan bu ñu teg nii. Euh, vraiment utopique pour di ko politiquer ainsi de suite parce que tey jii boo jëloon sa micro dem waxtaan ak mag ñi euh, boo leenee nee plan Sésame sax daañu jaaxle parce que ku feebar te yoroo koppar yoo fajo wala say doom yoruñ koppar yuñ la fajee ainsi de suite doo fajo donc ah. lan nga ñu mën a wax ci plan Sésame exactement fu mu toll jamono ji dëgg gu ne peng la mhm. parce que ki ngay waxal plan Sésame man dama ci liggéey ca njëlbeen nga mhm. plan Sésame bi ñu koy sos keroog jooju la ci ministère de la santé de l' action sociale bii. boobu Abdou Fall moo koy yore suñu jarbaat boobule. keroog joo ci mbiru plan Sésame bi toog naa ak directeur u IPRES ma ne leen plan Sésame bi du affaire pàcc rek moo ci war a ne ñun niñ ko gisee. Mhm. am na yeneen ak yeneen ak yeneen ñu mën a dugal ci plan Sésame bi. Mhm. mu doon njariñu mag ñi. Mhm. njariñu Sénégal. comme yan comme lépp li nga xam ne. mag moo ko moom ñu war ko ko jox mm-hmm. mën na ko ji mën nañ leen ko jox mm-hmm. ñu si liggéey di wëlbati mm-hmm. di yokk koom-koomu réew mi comme lan kom mag ñi nga xam ne am na xel ak xalaat bu rafet war tàggat xale yi daal leen jubal ci lu baax ak ci ay fas xeetu liggéey yi nga xamee ne mën nañ ci génn ñu def jàppale leen ci loolu le yooyu yëpp nekkoon ci plan Sésame doon na wàññi euh, naka lu tudd tuddati. Mhm. Euh, euh, njëgu paju mag doon na dimbali. Mhm. réew mi ci doxalinam. Mhm. doon na jubbanti lu baree baree baree bare kon dañu taamu woon keroog jooju ministre bi def ne. jël jël leen affaire faj gi rek après dinañ seet yi sa des. bu mu doo bu lëf boo koy sos. doo ko sos ndax politique rek. da nga koy sos ngir nga seet lii ban njëriñ lay indi réew mi. Mhm. Euh, ba tey ñu ngi wax plan Sésame plan Sésame génn nañu ci loxo retraité yi. Mhm. retraité yi moomatuñu ko maanaam retraité IPRES ak euh, FNR moomatuñu ko parce que ñoom dañ leen jël en charge. Mhm. ci seen façon jël en charge plan Sésame bi ñu amul retraité ko moom. pasteur paysan pêcheur. béykat bi kat bi kat sàmmkat bi jaaykatu caafeeg ñoom seen ñu am 60 ans et plus waaye plan Sésame bi ci boppam fa mu nekkoon. Mhm. couverture maladie universelle lañ ko ñëw dugal. Mhm. bokk ci woon. maanaam dañu jël plan Sésame. dugal ko ci biir couverture maladie universelle. loolu jaaduwul. Mhm. jaaduwul. alors ndax mag ñi amoon nañ ci plan. bu nga xamee ne noonu lañ koy doxalee di ko topp di ko saytu. di ko doxal. suñ ko bàyyi woon noonu. boole leen ci ñu koy doxol di ko topp di ko saytu tey plan Sésame dafa am problème ci affaire xaalis. Mhm. ñu ne war a fay. maanaam loo xamante ne état bi war na ko fay hôpitaux yi ainsi de suite. mais leen. mais bien alors loolu. Mhm. Euh, contrôle ba war a nekk ci biir. suñ ne woon plan Sésame fépp tey mën a développer pour mag ñi dafa war a am benn bureau mag ñu toog di ko saytu di seet ndax kii yeyoo na ko. Mhm. war na ko jariñoo waaw. rax sa dolli mhm. rax sa dolli mu doon lu nga xamee ne nag euh, xëj na réew ni muy doxee kin ko dénk moom mooy seet naka lay séddale cër yi mhm. ñun suñu yoon nekk loolu suñu yoon mu ngi ci su fekkee ne gis nañ ci lu baax dinañ ko wax buñ si gisee lu nga xamee ne mënta dem dina demee jubanti leen lii mais mais mais comme euh, Mame Birame Faye hmm. euh, tey ji mag mi feebar dem hôpital plan Sésame ci yan anam la koy couvrir ak ci yan anam la ko dul couvrir parce que mag ñi pratiquement bu ñu feebaree presque koppar yëpp si seen poche lay jóge donc lan la plan Sésame di couvrir exactement ci ci ci dépense yi mag mi feebar dem hôpital hospitalisé am ay ordonnance ay analyse yu war a def lu mu si couvrir waaw dadul bari dafa néew dafa néew lan la exactement euh, par exemple tey jii bu fekkee ne danga am ordonnance su cinquante mille mhm. euh, mais ordonnance su cinquante mille yooyu. Mhm. Euh, plan Sésame bi mënu ko gàddu. du ko couvrir yow yaa koy jënd. yaa koy jënd am na yenn mhm. am na yenn façon xeetu seet gi ñuy seetal sa yaram. Mhm. Euh, analyse dafay analyse de yu yu seer bu boobaa yow am na looy dugal dëgg la sax ne yow war nga am sax lenn looy def as loo war a dugal. parce que faj gratuitement yooyu yëpp amul. warta mën a ne waaye nag bu fekkoon tey. amoon nañ benn caisse de solidarité pour mm. mag ñi mm. dama ne la caisse de solidarité pour mag ñi mm. nga xam ne lu nu am ak waa waa ji nga xam ne dafa am xaalisam yéene ko mag ñi da ko fay dugal am na ñu nga xam ne am yoo seen xaalis dañuy def ngir yàlla te yàlla tax ñu dugal ko ci kees gi ñuy surveiller boobu kees nag. Mm-hmm. keneen bañ ko ko keneen bañ ko gi mm-hmm. tey jii euh, am na mag ñu nga xam ne seen ordonnance dem na ba cinq cent mille. Mm-hmm. ñoo koy jënd wala seen njaboot seen njaboot seen njaboot ko jëndul. Mm. danañ danañ wër fu ne dugg ko fa génn. Mm. tey jàll jàllise yi ñu ngi yuuxu. Mm. les accidents du eh, tey du travail bu yàgg la ñëw suma bureau. ñu toog bi waxtaan mais li ma wax dafa ma yéem. mais mais Mame Birame du ma dégg ngay wax si personnes âgées yi am insuffisance rénale parce que dialyse bi ça coûte excessivement cher. mais ça coûte même bu fekkente ne am na état bi côté bu mu gàddu. c'est toujours dafa nekk lu cher. si dinaa ci wax. dinaa ci wax wax naa ba xar. wax naa ba suma bopp toj mhm. fii mu ne wax la nu man waaye wax ji ñuy wax bu fekkee ne dangay wax mhm. nit ñi tëx lu gumba ci say wax mais dafay mel ni da ngay jël benn épée daal di ko sànni di ko di ko jam ci biir géej mhm. kon mën nañoo plan Sésame amul njëriñ am na njëriñ boo amee ordonnance yaa koy jënd sa bopp am na njëriñ analyse yaa koy fay soo hospitalisé lu plan Sésame di defal mag mi. <laughs> lu néew. comme comme par exemple lan. boo bëggee saal bu baax yaay fay. mais boo bëggee saal bu baax ñoom dañ la yóbbu ci am na catégorie yi nga xam ne. mais yaay fay. yow yow normalement. say doomay fay. wala ko fayul. Mm-hmm. tamit nekkuloo fonctionnaire nekkuloo euh, euh, naka retraité IBRS. Mm-hmm. boobaa say doom yi dinañ génne. Mm-hmm. loolu la. Euh, njaboot donc lan lay couvrir plan Sésame bi ci hospitalisation bi. Euh, wax dëgg yàlla lu muy couvrir lu néew la. Mhm. Euh, lu nga xame ne sax euh, am na ñu koy gedd. Mhm. ba dem seen clinique. Mhm. dem faju foofu. tey jii manuma la wax ne plan Sésame mu ngi dox. munoo wax ni. fi mu taxaw carrément lu lu palpable lu plan Sésame defal mag ñi. déedéet côté faju surtout. déedéet déedéet déedéet. voilà ñu ñëwaat ci parce que temps bi bareetul te foog ñu wax ci parce que ñu ngi toll ci jamonoy euh, coronavirus Covid 19 gis nga cas yi mi ngi gën a yokk nombre de décès yi ñu ngi gën a yokk ëpp nañ 80 décès ainsi de suite euh, ñu gis ni euh, ñi muy faat ñu ci ëpp souvent bu ñu amul 58 ans ñu ngi am 60 ans jëm kaw. Euh, ñu dégg euh, docteurs yi ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum paj ne Covid 19 bi ñi muy gën a euh, faat ñi mu gën a sonal mooy ñi nga xamante ni moom mooy les personnes âgées tey jii lan la état wu Sénégal def pour la protection des personnes âgées ci période Covid 19 bi Mame Birame Faye. comme que ñoom ñoo gën a exposé ci Covid 19 bi. bés bu yàlla sàkk maa ngi jokkoo ak mag ñi ci région yi. Mhm. mais dama yéemu ndax dan ma naan ñun boolewuñu si boolewuñu leen ci li nga xam ne programme de résilience bi dan ne mhm. programme bi ñu ngi ko jagleel ménage yi mhm. programme de résilience des ménages mhm. déglu mu bu baax a baax a wax te ménage yi mooy kër yi dox kër yi dox nag ña ko yore ay nit ñoo ko yore mais ñoo xayma nañu loolu ci réew Sénégal ñu ne genn wàllu kër yi dox yëpp mag ñee ko yore te am na région yu nga xamee ne eh, am na mag ñu ma ko wax. Mm. responsable yi ne ma dañuy dem seeti gouverneur bi war a préfet ñu ne leen bokku leen ci. Mm. kenn dugalu leen ci lii. Mm. ci programme de résilience. mais loolu catastrophe bu rëy la. jëyu bu mag a mag yow bi affaire bi amee woowuñ la comme yow yaa euh, euh, boole conseil national des aînés euh, kuréelu mag yëpp nekk ci Sénégal woowuñ la ne la waaw allo maam biram Euh, voilà ñu ngi teg benn force voilà Covid 19 affaire bi mag ñi la gën a sonal lan nga si xalaat lan ngeen soxla naka la ñu mën a jàppalee mag yi naka lañ leen mën a protéger contre Covid 19 bu ñu buggul sax euh, feebar bi yóbbu mag ñi fi nekk ñëpp. <coughs> la oowuñ la ci laaj la si sa conseil walla exactement ay solution par rapport a ça ak kuréel gi nga jiite dayo bi ma am ci dëkk euh, kuréel bi ma jiite nañu waxante au passage. Mm-hmm. que ne action sociale bu ministère de la santé. Mm-hmm. de l'action sociale euh, wax dëgg yàlla dinaay liggéey ak ñoom. Mhm. Euh, defanteeg ñoom réunion yu bari booba koy bi duggagul woon trop trop nii. Mhm, mhm. ñu amoon ci yaakaar lool ba léegi di xaar lépp lu nga xam ne ñu ngi ko war a jagleel mag ñi. ci programme bi bi mu ñëwee am ministère bu nga xam ne moo yore mbir yooyu résilience bi. ministère boobu. xayma nan ba bind ci mag ñi dañ ne personne âgée yi mm-hmm. waaye réew mi xam na ne tey am na benn kuréel bu nga xam ne moo rassemblé ñëpp mm-hmm. nga xam ne bu ñuy waxal kooku la ñu war a waxal bu ñuy jëflante ñoo ne te da leen di yombal liggéey bi sax ndax mm-hmm. région boo dem ñu nga fa département boo dem ak commune yi am na ñu koy def ci région yi gouverneur yi boo seetloo gouverneur Kédougou Kédougou mu ngi koy doxal na mu waree ak ñoñam boo seetloo gouverneur bu Ziguinchor mu Tambacounda wëy ak ñeneen ñi dañ ma naan. Mm-hmm. ñun dey préfet bi nee na ñun bokkuñu si mm-hmm. et gouverneur bi te ñoom ñoo samp kuréel yi. Mm-hmm. ci région yi yooyu nag dinañ ko waxaat. kooku moom dinañ ko régler ji fu gën a sori dinañ ko régler ak ñoom. waaw te loolu ne. Euh, moo di lan. Mhm. di ko di xoñoñal mag ñi mbir feebar bi gën a laal. ñoom bokkuñ ci ndimbali. te loolu mooy mooy li gën a bon. ci seen kàddu ak seen jëf. Mhm. kenn du xoñoñal mag euh, kenn du ko toroxal. Mhm. kenn du ko beddi. ci lu nga xamee ne moom moo ci gën a sonn moom moom moo ci gën a bi OMS. mi nga xam ne organisation mondial de la santé. nee na leen ne lii ci mag ñi la. gën a laal ñoom la gën a laal ñoom leen gën a a lifi non loolu kay ñëpp ko wax mhm. ñëpp ko wax mais amul amul sax wër jox mag ñi ay gel antiseptique jox leen ay ay ay masque ainsi de suite mais kon leen ay koppar dimbale leen man damay seet région de Dakar mhm. Tëngéej laa gis département de Rufisque mhm. maire ba maire ba de ak préfet bi di jëflanteeg magu département ba su ma laajee département Mm-hmm. Pikine mm-hmm. ñu ne ma ah ñu dañu ngi xaar mm-hmm. ma laaj département Guédiawaye ñu ngi xaar département de Dakar ma ne leen nag yéen jóg leen ngeen dem man duma ma yuuxukat bi nga xam ne damay toog di yuuxu fu ne mais yéen dem leen ngeen seeti kilifa yi ngeen waxanteeg ñoom jëf leen teeg ñoom ndaxte lii yéen a ko moom dañ leen ko war a jox te man euh, je serai très gêné maanaam damay jóge fii région bu nekk ma dem fa département ba fa nekk yéen war a doxal loolu ndombal tànk bi ñu leen jox ci seen région ak ci seen département mais yooyu man maa ngi koy noté. ak milliards yi ngay dégg yëpp moom lañ def ci Covid 19. mooy yéen ban ana milliards ya. Mhm. xanaa kañ bon milliards yooyu le mhm. plan d'action bu nga xamee ne. ci at lan ko tëral. Mhm. te lépp nekk ci biir. ci Covid bi même sensibilisation bi campagne beeg yooyu mu nga ca. te Covid bi dëkk ñëwagul woon parce que sensibilisation bi ci affaire maladie chronique yi la. te loolu lii. dafa ñëw fekk ci yooyu maladie euh, xam nga ñaata la biñ ko xaymaa pour Sénégal yëpp magu Sénégal yëpp. Mm-hmm. matul un milliard. du dërëm su wala dërëmu koppar buñ ci dugal. Mm-hmm. te tey ni ko déggee comme ni ma koy déggee. Mm-hmm. ah am na ñu yuuxu yëkkati seen baat ñu yëkkati xaalis jox leen. ay milliards. lan lañ defal réew mi ci loolu. mais mag ñi taxaw defaral réew mi ba réew mi baax. ba mm-hmm. toll fii. Mm-hmm. mag ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo. Mm-hmm. war ko jot ñu war leen ko defal mais dama ne bët bu du sul toj waay. jii dañu war a xam ne nag war nañ jóg ci mag ñi wax ci ñoom. mais est-ce que maam Birame euh, jël nga lettre bind daan ne. jébbal ko le président Sall directement wala def lettre ouverte au président Sall pour fàttali ko ne euh, vraiment mag ñi nga xamante ni ñoom la feebar bi Covid 19 gën a sonal di leen laal di leen faat. Euh, tey jii ñoom soxla nañ protection bu particulière boo xam ne ça n'a rien à ak ay pension ak ay euh, sésame ça n'a rien avoir voir da ngeen soxla une protection particulière ci jamonoy Covid bii. protection particulière et même. plus totale ndaxte. Euh, maanaam boo xam ni moom c'est uniquement pour pour les personnes âgées. waruñu ñu jaxase keneen. exactement mais boo seetloo tey jii dañ naan wuy ay bàjjenu gox ak ay délégué de quartier ñoom seen te ay histoire rek ay wax. nga ciy mm-hmm. dégg. Mm-hmm. fu wax ji baree mag du fa sànni kàddoom day teey xool. Mm-hmm. mais tey jii ku xam mbiram xam na ne man mii bind rek laay def. doo toog ci rajo bi wax naan bind naa diw ak diw ñoom ñëpp kilifa yëpp bind naa leen. ñi nga war a bind bind nga leen. bind ñi nga war a interpellé naa oto dem ba jam ñaajo kañ dem ci ministère ya fa ba léegi amul benn déposé ay dossier duñ la tontu sax mais dama ku fulaalul mag ku wormaalul mag. Mhm. kuy xoñoneel mag ku ku koy weddi na nga seet lu mu jëm. ñun ku ñu def li ñuy def yàlla moo ñuy fajal. Mhm. lu leer laa la wax fi mu ne. dama ne ñun ku ñu def lu mu ñuy def yàlla moo ñuy fajal te nañu xool ba sa kanam. tey jii boo doon noté Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale. ci mag ñi. xam nga yow tey boo doon notee Abdoulaye Diouf Sarr yow chaque fois ma ñëw fii nga naan ma noté <laughs> eh, te. waaw dama ne. ah mooy seen mooy seen tutelle kay. mooy leen coiffé xam nga mooy su mooy ministre de la santé et de l'action sociale. ñoom ah. da dëgër nañ fi ba ne tutelle ñooy suñu tutel waaw euh, nuñ ko mën a tudde sax ci wolof mooy ki nga xam ne moo yore sa kiir laay ak yooyu mais tey ministère yëpp war a doon suñu tutelle. Mhm. ministère euh, de, euh, du travail. du travail ca la bokk. Euh, ministère kii. de l'économie sax de l'économie mm-hmm. ministère de la de femme de de la famille. ministère solidarité ak ñoom seen. ñooñu ñëpp ñu kii ba tax na. Mm-hmm. fu si nekk daal am na pàcc yi nga xam ne sunu morso nga fa. Mm-hmm. moo tax ñuy wax ni ñun sunu morso yooyu nañ ko dajale indi ñu ko président ci boppam. moo war a jël matukaayam. morceau mag yooyu yëpp mu dajale leen benn bërëb bàyyi kaak mag ñi nag. Mhm. mag ñi gérer ko seen ñu ñu gérer ko bu ko neexee sax mu indi. benn nit da ngeen bëgg seen seen seen seen ministère à part. mais looloo war ministre boo xam ne daal ci mbirum mag ñi rek. lay looloo war France defoon na ko. waaw bu yàggul bi ma demee France ci fin d'année bi. Mhm. Eh, ñoom ci seen wàllu bopp. keroog ma rus sax dan ma ne yow. Mhm. soo buggee suñu ministre de la santé tout de suite ci semaine bii danañ ko invité ngeen toog ñu waxtaan. ma ne ëpp naa def. Mhm. waaye loolu yow mënoo ko am fii. mënoo ko am ci sëb réew. ci sëb nga dem am yow ngay toog di jë man di ñun mag dina dina daw ci suñu kaw doo kana gannaaw doom. Mhm. lu dul ne leen ne man ngeen ñu taseeg ñun ñu waxtaan. Mhm. ñuy toog diir. donc yéen da ngeen a bëgg. Mame Birame da ngeen bëgg euh, ministère boo xamante ni. personne âgée yi rek lay gérer. mu ngi noonu. waaw ci pàcc bu ne. waaw te loolu. ñu utal leen ministre à part. loolu. te tamit ca ca ku ministère boobu ñu teg fa mag ñi. Euh, wala fa ñuy décider mag ña bokk ca. war nañ ca war a mën a bokk xam nga boo waxee loolu. Mhm. Euh, xale yi mën nañ mais est-ce que ñu def la ministre sax. may may loolu. <laughs> ah mais poste bi ngay demandé c' est non spécial parce que. yeneen dëkk yi. xam nga France suñu rabi royukaay la. waaw tey jii buñ war a rey ci moom waaye dama ne. Mhm. bu nee mag mat na baa ngi cim réew. am na nu nga xam ne nu muy demee boo ko boo ko taawoo say mag. Mhm. doo doo ko rëccu jamais de la vie. Mhm. mais comme yow tey taxawaay bi nga am boo laajee ne dafa war a am poste ministre boo xam ne mag ñee koy tax a jóg ainsi de suite mais ministère boobu nu ñu ko war a tuddee sax exactement. est-ce que nekkul ni ah mën nañ ko mën a jox maam Biram mu gérer ko. parce que xam na xam na xam na du problème des personnes âgées ministère ministère de mais je des comme ça. Mm. parce que comme léegi yëf yi dafa jaxasoo. Mm-hmm. jàllale ñoom yéen xamoo leen sax kan ngeen war a waxal. doo xam waaw. parfois nga ne Diouf Sarr wala ministre du travail wala de la femme wala kii euh, wala de l'économie c'est un peu ay la yëwen nanu wax ne mm-hmm. euh, action sociale bi nekk ministère de la santé et de ñu ngi ñu ngi ñu uuf ñu ngi ñuy taxaw ndax bureau bale ñoom ñoo ñu ko jox. Mm-hmm. waaye seen doole néew na ba nga xam ne. Mm-hmm. Eh, wax dëgg yàlla soxna si ñu ngi koy au passage duñ koy nuyu eh, docteur Aram Top. Mm-hmm. seen eh, ku baax suñu jarbaat la suñu doom la mais boo toogee wax moom rek dangay ngay mujjee. Mm. daan ne ah xaar mais mag du xaar mm-hmm. du ñu xaar a xaar a xaar a ba xat di mm-hmm. eh, kenn kawit bi dafa ñëw ndeysaan gàllankoor lu bari mm-hmm. mais waaye eh, terewul gannaaw ba loolu am na ca njëlbeen ga fan doon ràbbe fan doon nase fan doon ruccee waroon nañ fa oo oh, mag ñi dana leen ay ci leen loo xalaat ci lii ñun am na lu nu man ci njaboot gi ndax ñoo yore sët goro yi sax ñoo leen uuf yenn saa yi mhm. wax dëgg yàlla mhm. ñooy dundal njaboot gi mhm. kon tey am na nu nu mën a taxawu njaboot bi ca famille ba ci quartier yi ndax am na ñu ñu jox suñu gëdd ak suñu cër nekkuñu fi nag mag ñi parce que bari na ci jeunes yi wax naan mag ñi dañu war a pousse dem. Mhm. waaw pousse dem jeunes yi ñëw toog. waaw non déedéet. a à 65 bi sax euh, fàtte naa la ka laaj. <laughs> temps bi jeex na mais pratiquement bi jeex na. manuloo pousse. Mhm. mag ñu nga xamee ni da indi njariñ. Mhm. mag ñu nga xamee ne dañu am njariñ. xale dina am njariñ xale dina ñàkk njariñ diplôme rek kese mënta pousse kenn. expérience dafa baax. Mhm. ci réew mag moo toog fii. di gis gis fu sori. Mhm. yow xale nga ni cëpp ju garab ga. doo gis dara doo gis tous. Mhm. loolu la. Euh, du mais mais a à 65 ans bi loo si wax parce que am na ñoo xam ne ànduñ si euh, dëkk boo xam ni les jeunes chôme ainsi de suite de chômage. ñoo yokkal ay 65 ans kon ndaw yi naka lañu ñu. Euh, amee liggéey juste une minute ñu ñu tàggatoo. waaw vraiment foofu. xam nga waxoon naa ci. retraite à 65 ans. Euh, dafa war ci ñi nga xam ne ñu ngi gëstu yore xam-xamu dina jëriñ. Mhm. te ñu am doole di ko def. tey waxoon naa la kaawu docteur yi. Mhm. mais professeur Raoul bi nekk France. Mhm. mag la mag la. am na yeneen professeurs yi nga xam ne daje naa ñoom foofu la ñoom ay mag ñu ko ñoo mag sax professeur Raoul dañ leen di soxla di leen oo ci université yi ñuy jàngaleek ñoom seen dafa am yenn xeetu liggéey yu nga xamee ne war nañ ko mën a dem boo amee doolee def ko ak xelu man ko def nan la bàyyi nga continuer ko bu fekkee ne mën na ne leneen li yow doo bu bu ma nekkee dookeer man mhm. di yenu li diis nekk ca port ba dem dinaa dem ba cinquante ans mhm. juróom fukki at su ma ko weesoo dootuma ko man mhm. dootoo am doole ba am dooleem dafa am xeetu liggéey yi xam ne doole moom moo ko yore xeetu liggéey yi xam ne xel ak xam-xam moo koy demee te bu kuy rey say mag Euh, boo moytu yow nga jiitu leen. Mm-hmm. ca euh, armée ya mm-hmm. kuy kuy faral di rey ay magam boo moytu yow leen di jiitu ci armée ya mm-hmm. rey leen nag du jël euh, paaka ren di mooy di jëflanteeg ñoom lu nga xam ne warul. waaw jëf googu nga xame ne ma ne su ko dégg. ma ne su ko xam. Euh, kon bon dañuy ñaan yàlla jeex na ñu bàyyi la nga nga tàggatoo Mame Birame Faye damay tàggu mhm. mo suma morom suma xarit yi suma ñoñ yi mhm. samay àndandoo yi ne leen mhm. euh, nanu góorgóorlu rek nanu góorgóorlu ci région yi nanu dem di waxtaan ak euh, kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci région yi xamal leen parce que xam nañ ko sax ndax ñoo samp kuréel yi te ñu doxal li ñu war a doxal ñun nag dan naan président ci wàllu boppam toujours ñu ne na gën a jël matukaayam gën a jëflanteel mag ñi te di bañ déglu xel yi nga xam ne. Mm. boo yëngatoo wax rek ñu ne kii dala contre. Mm. président kenn contre ko. mag du contre benn président bu contre président. contre na ba président geestu mais dafa war a ge daf ñu war a geestu mm. nécessairement parce que ñun euh, bu dul dara sax am nañ fu ko féetee ci at ak ci kilifteef. d'accord mooy kilifa gi nga xam ne gannaaw yàlla moom la. Mhm. mais am na lu nga xam ne bu ko jëflanteeg mag ñi du ko rëccu. waaw mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax euh, Mame Birame Faye euh, du ma Diouf Diouf euh, Mame Birame Faye laay wax <laughs> comme que souvent dañuy wax Mame Birame Diouf Mame nekk président bu conseil national des aînés du Sénégal ñu doon waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni personne âgées yi retraités ñu ngi koy jànkonteel rawatina ci jamonoy Covid 19 bi lee di remercier auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier Mamadou Diawa Diallo nekkoon ci technique technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission ak beneen invité émission bi nag mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne euh, YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com ba samedi prochain incha allah